gan gi mi ngi ak ñun euh, Serigne Mbacké euh, njiital convergence libérale et patriotique CLP ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre am mbégte dalal la ci matinal Rewmi FM tey. maa ngi lay fay soxna si di nuyu sénégalais yi ñu déglu yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mhm. ñu tàmbali waxtaan wi ak euh, président Macky Sall mi war a tànn gouvernement bu bees lu ko jiitu premier ministre boo ñu doon nataalal kooku tey nu mu war a mel. waaw ni mu war mel mooy dafay war doon kilifa loolu nag moom dama ci taxaw bu baax a baax a baax ndax jàpp naa ni moom kuy politique moo ci war a bokk ku dul politique waru ci bokk rawatina nag bëgg a jiite gouvernement. kon mbiru technocrate waxoo si dara. déedéet parce que technocrate du waxu dara ndax technocrate mooy lan mooy koo nga xam da borom xam-xam la ku jàng mais ñi nga xam dañu engagé pour dañoo jàng ñoo bokk école yi bokk université yi bokk formation bokk lépp dolli ci nag ñii engagé wu politiquement ñële engagé wuñu politiquement. donc pour man dafa war a doon kilifa goo nga xam ni engagé na politiquement am na ak dal mën na wax ak askan wi nit ñi mën nañ ko déglu parce que jox nañ ko cër waxuma kilifa goo nga xam ni euh, président Macky Sall mooy tax nit ñi di la déglu déedéet waxuma kooku. Hmm. parce que am na ñoo nga xam ne tey même bu ñu demee seeti kilifa diine kilifa aada ku mën di seeti. boo bu ñu la nee daman nga ni en président Macky Sall tax waxuma ku mel noonu dama bëgg koo nga xam ne bu dul woon moom mu am cëru boppam am cofeel googu xam sénégalais am nañ ko ci moom. am dal am yar am teggin xam teere politique. parce que dafa toll jamono boo nga xam ni dañu ne élection yi feeg fukki weer ak juróom-benn fukki weer ak juróom-ñett jàng xaju fi nab nabi xaju fi boroom xam-xam kàngam moo ko mën a jiite mat place bi fees ko del bu ko defee jàpp naa ne lépp loo nga xam moom la président de surtout sénégalais danañ ko ci am muy nekk jàmm ci réew mi. loolu moom lu bees tàq lu muy daaj ci paquet la wala lu fi am la ba noppi. kilifa politique gu bees kenn mënu ko tabax. te li nga am ci sa biir kër jaruta wëri am na ko ci biir këram ñi ngi nekk ak moom ñoo nga xam ne lii ma la wax mat nañ ko macha allah te ku mu ko ci sant di nga ko defal ni nga ko bëggee donc du lu ñu wëri. Mm-hmm. mi ngi fi am nañ ko bu baax a baax a baax ñi ngi di ñu dégg. ci ñi fi ne kañ nga kan nga yaakaar ne moom la nar a daan. ah loolu nag mënu ma la ko wax. xam xamuloo ci dara. <laughs> déedéet xam nga même su ma ko xamoon du ma ko. wala ñu ko wax xamul. Mm. waaw doo ñu jox sax ay indice tuuti yoon la président Sall a xam nga xam nga bu bu la yàlla suturaale ba léeg-léeg hmm. ki nga xam ne moo jiitu réew mi nga woo ko mbaa mu woo la ngeen toog waxtaan boo wax da sàmm say kaddu ndax ñi loo wax ñu ci diw la ko jëlee hmm. te ñun suñu xalaatu bopp lañ am di ko di ko sottil niñ ko joxe la ko ñeneen ak ñeneen di ko joxe booleeg la moo xam te xamuñu ko mu def tànneef gi ñu jàpp ni moo gën. gannaaw loolu mooy gis-gis bi ma am ci premier ministre. waaw baax na gannaaw premier ministre léegi dina taxawal itam gouvernement booba gouvernement yan tànk la war a doxee jëm deux mille vingt quatre Euh, ni ni ni ni premier ministre bi di mel noonu la gouvernement bi ministre yi ci nekk noonu la war a jéem a mel ndax du lu bees ci réew mi ku nekk yàgg nga dégg sénégalais yi xëy na man mun na ma bañ a daal man mii wax a yow hmm. ndax xëy na am na lu ñu mais bari na sénégalais yoo xam dañuy dégg ñu ne la ministre yi ku leen woo du ñu la jot doo leen jot ñu ci bari du hmm. ñëpp nag hmm. am na ci ñoo ngi xam boo leen woo même boo leen jotul ñu rappelé la am na ci ñoo nga xam ne boo leen gis Macky Sall gën a yomb gis leen. dëgg am na ci ñoo nga xam yenn DG yoo xam gis mag gis ministre bi moo gën a yomb gis leen. Mhm. mais am na ci ñoo nga xam ne dañu nekk Sénégalais di déglu Sénégalais di jaxasoo Sénégalais di ànd ak Sénégalais damay joxe toujours benn exemple. Mhm. le ministre Matar Ba ëpp fi xam-xam. Mhm. ëpp fi dara. mais cofeel gi sénégalais am ci moom bari na ministre xom amuñu ko ci ñoom lu ko waral mooy comportement ak déglu ak jaxasoo gi mu am ak sénégalais ay nit nag mënoo bëgg leen a jiite parce que bu ñu fàttee ni du ministre du DG du PCA bu ci fal sa bopp. Mhm. benn nit la ñuy fal ci Sénégal mooy président la mu tànn la jiite la yow. nga gis ni léeg nga gis ay ministre wala ay DG xam nañu bu baax li may wax. Mhm. dañuy jàppale je donne benn juste exemple benn journal wala benn rajo. Mhm. nga gis journaliste buy yàq président de la république musiba. bu guddee ñoom ñaar ngeen gis ñu ànd restaurant moom ak journaliste boobu. na mhm. muy def parce que man am na benn expérience bu ma mën a wax. benn ministre mës na ma yónnee benn message parce que dama bind benn article. Mhm. yónnee ko ci presse bi. benn journaliste récupéré que yónnee ko benn ministre ni ko kii dafa mel ne dañ ko yónnee pour mu attaquer la. Mhm. ministre bi yónnee waat na article bi sama sama sama WhatsApp. ma ni ko nii nga def ba koo yaakaar ni mu attaqué la nga jëm ko faagaagal. waroon ngaa taxawee noonu ba ku jéem a attaqué président la mi la fal nga jéem ko faagaagal donc dafa am façon ministre yoo xam bu leen président jiitalee ñëpp ànd ak ñoom parce que dañ dañ koy rafetlu mais am na ñoo xam bu leen jiitalee yàq lay doon. kon su ma la am na ci ñoo xam ne dañuy gor ay tànki président Sall. non même bu ñu gorul ay tànkam. Hmm. dañuy jël lamu leen jox. ndax post bi ñu yor moo leen ko jox. Hmm. dañ koy yiire seen bopp bàyyi ko moom mën ne ci taw bi. Mm. duñ ko attaqué ba nga dégg leen ñu répliqué. waaw loolu dañ ko défendre. Mm-hmm. amaluñu njariñ askan wi. kon loolu lépp day wëlbatiku dalaat ci ginnaaw moom Macky Sall mi nga xam ni. Mm. moo xeex moo def ay mbiram moo moo laaj baatu askan Sénégal ba sénégalais jox ko ko. kon ki nga xam ni moo la jox li nga yor wax dëgg yàlla jom ak ful ak ngor mooy au moins nga jéem ko protéger jéem ko défendre. Mm-hmm. mais bari na ci ñoom du ñëpp encore une fois. mais am na ci ñoo nga xam ne seen bopp la ñuy défendre. faale wu ñu bëgg Macky Sall mhm. loolu kenn ku nekk teg di gis a bët ñaata ministre ngeen di gis ñu dem ci rajo wala ci télévision wala ñu dem ci askan wi tey par exemple manifestation amee kenn waru leen fa war a jiitu mhm. parce que lan mooy indi manifestation askan wi ñoo am lu ñu naqari te xamuñu kuñ ko waxal bu ñu gisoon ku ñu ko waxal du ñu génn ci mbedd mi di manifester loolu du rôle lu président mais rôle lu ministre la malheureusement bari na ñu ko lu def am na nag ñu am taxawaay boobu mais am na ci ñoo amuñu taxawaay boobu. Mhm. kon daal gouvernement bii nii am na ñu bari ñoo xam ne jàpp nga ne danoo war a dem ñeneen ñëw. ah oui bu baax a baax a baax a baax. xam ne kay waruñu fekk sax fu ñu fu ñuy lii rek bi eh, <laughs> <laughs> ah, nañ seen bopp. xam nañ ko de dem ñëpp xam nañ seen bopp. Hmm. parce que nag jeeg bi na ci kër gi di sëy. Mhm. bu ak ayam neexee xam na bu naqaree xam na. Hmm. bu neexee. Hmm. xam na bu naqaree xam na. maintenant il faut faire nag la différence parce que dañu dégg ñu neen jiw gañe nañ ko mais mën nañu gañe nit te du terrain yi waxuma sax bàyyi ko mais dañ ko war a dooleel. Hmm. ndax la ko gañe moo tax. du yaa fuusam du ñàkk liggéey mais leneen a tax ñu gañe ko. Hmm. donc bu ci nekk dañ ko war a càmbar kaa bu ci nekk ak moroomam mën nañoo bañ a bokk. d'accord am na ñu ñu gañe te jàmbaar la ñu am nañu ñu gañe te coow li yu bari ba tax ñu gañe. d'accord waaw loolu yëpp am na alors jàpp nga ne aussi am na ñu ñu dàqoon ñoo xam ni dañ leen a war a indiwaat ci gouvernement yewees waa loolu moom wax dëgg yàlla jàpp naa ko ku mel ni kan euh, ñoom ñëpp ña demoon ñëpp ñu dàqoon ñoom ñëpp amaan na fi Aly Ngouille Ndiaye ah. euh, euh, Matar Cissé Amadou Ba mhm. Oumar Youm ainsi de xëy na président xam nga équipe li Ablaye Wade daan wax nii mhm. Euh, gouvernement pour man équipe bu football la. c'est ah, vrai buy gagné de kenn du ko changé. da ngay ñëw dugal joueur bi hmm. am loo doon yaakaar ci moom tey gisoo ko nga rocc ko ëllëg mooy nga ko gis ci moom. waaw ndax gendarme man sa jaraaf tey. ñu dugal ko ça dépassé match bi daal waaw. beneen yoon ñu dugal la feneen nga dox. <laughs> Hmm. mais ñooñu jàpp naa ni wax dëgg yàlla bi ñu génnee gouvernement bi askan wi wane na ñii kat am nañ cofeel ci ñoom. Hmm. kon ñooñu xalaat naa ni. xaw ma fu leen nu leen président di utiliser est-ce que gouvernement la est-ce que assemblée est-ce que feneen ak feneen parce que ñi limal daanaka ñoom ñëpp falaat lañ leen député. Mhm. donc président moo xam fu mu leen di utiliser mais jàpp naa ne askan wi soxla na leen. d'accord gisoo Aminata Touré ca njiital assemblée nationale. waaw lu mën a nekkeel parce que assemblée ay nit aussi dañuy dañuy nawlonte dañuy joxante cër. député fa nekk yëpp téeméeri député ak juróom-benn juróom yëpp mën nañ ko doon. rawatina ñun suñ kuréelu bennoo juróom-ñett fukk ak ñaar ya juróom-ñett fukk ak ñett yi ñu am kenn ku ci nekk mën na doon président de l'assemblée maintenant tànn moom ku tànn rek am na ñoo wàcc. Mhm. waaye nag boo xoolee juróom-ñett feegee ñett xëy na di nga ci jël lu mat ñeent juróom juróom-benn yoo xam ku ci ne dana naan ah xëy na kii la war a doon kon li am solo mooy président waxeek ak ñoom ñëpp parce que mooy li ma wax rek dañu ànd àndu nawle. Mhm. bu waxee ku ci nekk la mu war a waxee yow ku ci nekk am na foo nga mën a jariñ askan wi am na foo ko war a mën a teewal yow soit assemblée la soit feneen la mu jox la ko hmm. mais jàpp naa ni bari na ñoo nga xam ña nga fa ñu ngi leen di tudd ak ñu ñu tudd sax mën nañu ko mais li ci am solo mooy niñ ci diisoo ba tànn boobu président di tànn du indi coow. assemblée nationale naka la fa bennoo ak yeew Yewwi mën a jëflante xëy na ba réew mi du taggatémbe wante itam euh, coow bañ a jib seen diggante. waaw man damay jàpp ni ñoom ñëpp njariñu réew mi moo leen tax a jóg parce que hmm. politique dafa metti ku ci dugg di ci xeex rek man damay jàpp ni njariñu réew mi waaye li may jëkkee parce que wax naa ko daaw ma di ko wax di ko waxaat ni assemblée bu bees bii di ñëw li may gën a séntu ci ñoom benn mooy ñu fexe ba jàmm dal gën a am ci réew mi hmm. ndax askan wi kat war nañ seen bopp coow lu mu bari bari bu élection jotee doo leen dégg dañuy génn wote tànn ñu bëgg dem toogaat jàpp seen jàmm kon population bi na classe politique bi lan la bëgg kon assemblée nañu voté benn loi d'amnistie boo nga xam ne dana tax ba ku mel ni Karim Wade ku mel ni Khalifa Sall ak ñu mel ni ñoom te yoon dabal leen parce que nit ki même buñ la jàppee tëj la kaso ñu la kaso pour toroxal la tëjuñu la kaso pour rey la yar la wàññi la donc day dem ba jëmmi jamono ñu mën leen a bàyyi ñu dëllu siwaat ci société bi boo jëmee réew mu mel ne Afrique du Sud réew ma la mu doon métti métti métti dañu toog jëmmi jamono ñu ne ah nañ leen waxtaanaat képp koo nga xam defoon nga ñaawteef dañ la koy baal ñëpp àndandoo nu jàppandoo bokk ndey bokk baay parce que réew mu mel ni Sénégal gis nga bu ñuy wax ñun politiciens yi ñuy wax ci affaire dund c'est important leneen ak leneen c'est important mais dafa am lu ko ëpp important jàmm mu ëpp importance lépp te bu ñu xoolee suñu réew mi mooy menn réew ci réew yi ñu wër yoo nga xam ni ba fi jutoo wax yàlla mi ñuy sutural ba yenn yu fay am amul ci suñu biir réew mu nekk réew moo nga xam dafa dëgmal pétrole ak gaz pétrole ak gaz fu mu nekk jaaykatu pentit jooni ñëw fa jéem a taal réew mi loolu nag boo fat réew tolloo addina bi nekk ci ay jafe-jafe nga am ay doom yoon xam ay kàngam la ñu kenn mënu ko werante muy xalifa muy kere muy ñu mel ni ñoom hmm. addina dañ leen a soxla di jariñëw seen xam-xam ak seen xel mais même bu nee ni defoon nañ erreur tribunal condamné na leen mën nañu lever condamnation boobu bàyyi leen ñu dellu siwaat parce que lam ñu ñu ëppal la ñuy indil moo ëpp li ñu yàq. ñu mel ni waa Forum Civil jàpp nañ ne loolu moom day daganal ak luubal ci réew mi. non du daganal luubal loolu wax la rek du daganal luubal kenn ku nekk nag man damay respecté sa gis-gis te ñi koy waxee mën naa leen comprendre parce que ñu ci gën bari ay juriste lañu xam nga juriste moom droit rek la lay wax ñun ñuy politique dañuy boole droit boole kook moral boole kook social boole kook leneen ak leneen ak leneen. Mhm. pour mën a teg suñu suñu argumentaire mais leneen li nga xam ne assemblée war na ko def bu bees bii. mooy fexe ba élection yëpp ñu def ko ci menn at. Hmm. am réew du dëkk ci campagne électorale am réew du dëkk ci politique. te bu ngeen fàttali ko 1993 la ñu tàmbali am élection yu bokkul maanaam man am mandat président bu sept ans député nekk cinq ans maire nekk cinq ans kon mënatuñ ko woon a boole. Hmm. waaye fii ñu toll nii mandat président nekk juróomi at député nekk juróomi at. maire nekk juróomi at président de département nekk juróomi at war nañ mën a fexe ba ci menn at mi bu buñ ko defandiwul ci benn bis en tout cas ci diir diir bu jege ñu organiser ay élection bu ko defee danañ am ñeenti at yoo xam ni. Hmm. doo dégg campagne électorale doo dégg meeting doo dégg leneen réew mi dañuy jublu ci liggéey mais réew mënul dëkk ci campagne électorale ak alal ji ñu ci yàq ni mu toll loolu mënta nekk donc ñaari mission yooyu jàpp naa ne assemblée bi di taxaw. loolu la war a jëkk def wala war a jëkk dogal. noo gisee ëllëgu alliance euh, yi wàllu ak bennoo bokk yaakaar euh, ñi nga xam ne xëy na ku nekk yaa ngi teewagum fi nga tee euh, seen i ëllëg noo ko gisee ak retrouvailles de la famille libérale bi nga xam ne boobaak léegi yéen a ngi ciy dox yéen libéraux yi. d'abord xam nga bennoo benn candidat la am ak lu mën di xew donc foofu bu ñu doon dem élection présidentielle jàpp nañu ni jafe-jafe mën na bañ a am foofu boo jëlee moom yeewi defe naa jeex na. parce que ànd nañu élection locale ànd nañu élection législative sénégalais jox nañ leen liñ leen di jox. ah dégg nañ ñu ne dañuy dañu koy wéyal ba 2024 yaakaaroo ànd bi yàgg. non loolu mënul nekk xam nga ay nit aussi da ngay wax lu mën a nekk. parce que hmm. ku nekk xam na ni lii ma wax nii boo amee par hmm. exemple yàlla may ñu fekkee te tal ku mel ni Ousmane Sonko annoncé na candidature am. Hmm. Yewwi la bokk. waaw ah. Malick Gakou annoncé na candidature am. Yewwi la bokk. ñi farak xalifa Sall bëgg nañu xalifa doon candidat yeewi la bokk. Mm-hmm. Karim Wade waxuma dama ko jëlale. Mm-hmm. bien que moom fële la bokk ci wàllu. Ah. mais moom it incha allah candidat la doon en deux mille vingt quatre. dèjà ci benn inter euh, li ñu tuddee intercoalition boo loolu sax taxawul. Mm-hmm. mais boo ci gisee dèjà ñeent wala juróom wala juróom mel benni candidat xam nga ne alliance amatu fa nañu wax dëgg. te it bu ñu la wax dëgg-dëgg rek PDS xajul ci ginnaaw kenn loolu mooy dëgg gi aussi. PDS xajul ci ginnaaw kenn la preuve boo xoolee tey assemblée nationale bu bennoo jàllee suba ma jumul PDS moo ci topp am ñaar fukki député ak juróom-ñaar. kon ñaari coalition yu mag yi yëpp yàqul dara ci retrouvailles yi. non retrouvailles yi beneen affaire yàqul dara. Hmm. yàqul dara parce que retrouvailles yi leneen la. yéen a ngi ciy dox ba léegi. Ah, bien sûr loolu duñ ko man nee naa la keroog biñ ñu gañee dimanche bañ ñu gañee ca altine ja laa toog ak président Wade yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram. mu ma loo xalaat ci avenir ma wax ko ni ko sa ñaan moo nangu sa doom moo fi toog tey. Mm. benn yow yaa taxaw fi ci kanamu Sénégal yëpp ni enfin avec Macky mes chantiers sortent de terre. Mm. xaal bu nekk ñam naa ko bu safee ni suukar mënu ma koo ñam. Mm. musuma ko ñam. Mm-hmm. yaa dem ci Serigne Saliou Mbacké ni ko ñaana ñaanalal ma xale bii ndax bu fi jógee mu remplacé ma. kon tey bu loolu amee yow sa jaan wàcc na li ñu dese mooy. fexe ba ñu toute la famille libérale parce que loolu mooy ndam li gën a rëy li Ablaye Wade am te duñ ko tudd. Hmm. ndax 1979 dafa dem comme observateur au congrès de l'international libéral bi doon am Ottawa. Hmm. mu wax fa ni nous serons les porte-drapeaux du libéralisme en Afrique noire. ba mu ñëwee jamono boobu parti bi xaw naa tas ndax loolu. Hmm. mu gëm ko di ci xeex di ci xeex di ci xeex ba libéralisme boobu jël pouvoir après vingt six ans de combat def ci réew mi li mu def ci réew mi. te li gën a rëy li mu def ci réew mi mooy former ay ndaw yoo nga xam ne tey boo leen dajale woon au moins soixante dix pour cent des sénégalais ñooñu la ñu àndal. Mm-hmm. donc loolu ndam lu rëy la. kon loolu kenn du ko bàyyi li ci des mooy fexe ba PDS président wadd mi ci des naka la ñuy fexe ba moom ci retrouvaille famille libérale parce que nag moo ko war a jiite aussi mm-hmm. bu Macky Sall dee jëwriñ ji moom président Abdoulaye mooy bàyyi di tey kon loolu defe naa ne war nañ mën a eggali liggéey boobu. comme na mu ko waxee woon libéraux yi continuer yore Sénégal au moins pendant cinquante ans lu gën a léegi jéego yi moom ña ngay wéy wala fi mu ne jamono yi président Sall mi ngi dakaar euh, président Ablaye Wade autant pour moi mi ngi Dakar est que am na lu ci bougé ci retrouvailles yooyu. mbaam mbaam du jur ci ja. Hmm. mbaam. Hmm. du ci ja xam nga loolu. loola itam doon jox dara. <laughs> dégg naa <laughs> waa doon na ci mbaam <laughs> waaw. baax na kon ñu wax ci denrée yi ndax waxtu bi dab nañu njëgu dund gi cher lool di wéy xëy na la xew tuubaa moom lu exceptionnel la kilo soble yegg ci juróomi téeméer euh, fi mu ne itam nit ñi xaw a lott lool wax dëgg yàlla ci seetaan gi ñu jàpp ne moom la kilifa yi nekkee marché bi amul benn régulation loolu ndax mënul yàkkal président Sall euh, responsabilité état quand leer na ni foofu moom engagé na. waaw responsabilité état engagé na loolu kenn du ko ñu mel ni waa ASCOSEN ñu mel ni ñoom met ma soxna kan euh, di wax ni. Hmm. ministre du commerce arrêté bi mu war a jël pour ñu fixer prix yi ba fii ñu toog dox jëluñu ko. loolu benn problème la kon tey commerçant boo dem dal ci kawam sax da nga koy tooñ parce que xamuñu prix bi ñaata la war a jar. Hmm. ñaareel ba ñii dem di def contrôle ci boutique yi ba tey dañoo manqué parce que bu ñu naan ay ñetti téeméeri ndaw la ñu am loolu du dara ci Sénégal kon war nañu jël ay mesures rapidement ndax président jël na créé na programme xëyu ndaw ñi. ñuy recruter ay ndaw yóbbu leen ñiy santé ñi ñu yóbbu leen environnement ak feneen ak feneen gis ngeen ne gendarmerie ASP ñoo leen di assister gis ngeen ne police même ASP ñoo di assister kon war nañu mën a wut ay recruter rapidement ay volontaires yoo nga xam ni dañuy liggéey ak ndaw ñi ci quartier yi di liggéey ak délégué de quartier pour contrôler les hmm. mais xam nga bu ñuy wax yokku danre loolu gouvernement mën na ko rapide mais dafa am leneen loo nga xam ne pour man xëy na sax mu ëpp solo marché Sandaga gii nga xam ni ñaari at a ngi demul dikkul te lu mat cinq cent mille personnes ñooy tourner autour de Sandaga marché Petersen te Petersen li ko indi blocage bi mooy travaux BRT yi nga xam ne eggaguñu nga gis les travailleurs de l'ex Sotrac Soadip ainsi ba doon def grève de la faim hmm. tey fii may waxe yow travailleurs Expresso ñu ngi def sitting boo demee dans la banlieue fu mel ne tey ay ay euh, Diamniadio ainsi de suite hmm. population yi am ay problème mu suuf parce que jàpp nañu ay promoteurs ñoo ma bëgg a ñëw di nangu seen suuf question yooyu da nga koy boole ci cherté de la vie ñu mën di trouver une solution. Mhm. parce que daare même bu dee ni jafena na. kilo ceeb bu seeree te am loo ko jëndee jàmm am. Mhm. waaye bu seeree ba pare nga boole ci ñàkk sa liggéey. Mhm. musiba lay jël ci am réew donc jàpp naa ni. y a des mesures énergiques yoo xam gouvernement bi war na ko mën a jël. Mhm. pour régler question yi définitivement dal mën a am ci réew mi jàmm mën a am ci réew jërëjëf euh, Serigne Mbacké Ndiaye amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi tey monsieur le ministre di gërëm bu baax ci disponibilité bi yow moom ñi ñuy woo duñu leen jot bokkuloo ci. <laughs> jaajëf ñu yendoo jàmm jërëjëf ana ñu